asalaamaaleykum samay abonné kontaan naa bu baax yéen bu leen di fàtte abonewu ci sama chaîne YouTube bi lien bi muy ci TikTok maa ngi ñëw te ci mardi mu nekk Ligue des champions Milan AC moo dalal Chelsea si këram kan moo njëkk a dugal mooy Pierre Aubameyang dugal na bii bu rafet moom mu ngi ci form commencé na wane boppam ci équipe Chelsea moom Pierre Aubameyang tey nag international sénégalais muy kan Kalidou Koulibaly mu ngi ci défense bi mu nekk lu baax Edouard Mendy nag moom pour le moment gisaguñu ko mu góolu mais euh, fii ak ay fan peut-être fii ak ay semaine moom Edouard Mendy mun nañ ko gis mu commencé di góolu ci kaw Chelsea tey nag Chelsea dafa ñëw ak confiance mais dafa ñëw ak doole ñëw wane boppam ñëw dóor Milan AC ci këram mu nekk lu baax si Chelsea boo xam ne nii ci championnat ñu ngi ci forme mais ci Ligue des champions aussi ñu ngi wane seen bopp pour le moment Edouard Mendy gisaguñu ko ci kaw Chelsea mais peut-être fii ak ay semaine moom Edouard Mendy mun na rejoindre eh, formam mun jëlaat place moom Edouard Mendy mais pour le moment moom di Man City moom aussi qualifié na tey moom qualifié na mu nekk deuxième équipe bu qualifié à part après moom Real Madrid aussi qualifié nañu mu nekk lu baax si Man City boo xam ne nii ñu ngi koy xaar bu baax si Ligue des Champions mais nag tey moom ak Dinamo Zagreb dafa def zéro bi partout moom City City nag moo gënoon dem fekk si Dinamo Zagreb bu ñu fa jógee dañuy dem ci ñëw ci Real Madrid ak Stade Reims moom moo dalal euh, Real Madrid ci këram Real nag te dafa ñoo def euh, un but partout mais aussi Real Madrid qualifié na fekk si Man City mu nekk lu baax si Real moo ne nii ñu ngi waajal euh, classico bi loolu tamit feeñ na ci biir match bi moom Real Madrid ñu ngi waajal bu baax classico diggante ñoom ak Barça dara du sedd mais aussi dara du yomb moo tax tey nag dafa ñëw réserver seen pour rek ñu mëna préparer euh, classico ak euh, Barcelona. buñ fa Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain ci Ligue des Champions bu ça va pas ndax euh, Benfica. un but partout lañ def marche aller retour bi tamé ñi def un but partout ñom ñaar nak ñoo tolo point ñaar équipe Paris essayé nañu kan moo dugal seen bii bi Kylian Mbappé moo dugal penalty mu nekk penalty boo xam ne ni lu baax la c'est Paris Saint-Germain mu mun a jël avantage ci kanam Benfica mais après Benfica tamit ñëw Marco Verratti moom moo taagle ci biir 18 yi ñu siffle penalty ci la Benfica am penalty dugal def un bi partout man la Alseyni Alamouta Sport ba yeneen vidéo